di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu jéggal ñu ci suñuy bàkkaar nangu ñu ci suñuy jaamu yàlla di ko ñaan mu yàggal fi sunu kilifa gi di cheikh Mouhamadou Mountakha xafizahu llahu taala wa ayadahu wa nasara nu dellu si di fàttalente rekk tey nu bëgg ko jëmale fàttali gi ci solos waxtu ak niñ ko war a fonke ak ni niñ ko war a dundale ndax dañu toll ci jamono joo xam ne luy fëkk nit ki di ko soxlaloo ci loo xam ne bari lu ko njariñ mu ci sànq waxtoom te mu man koo jëmale ci lu baax dañoo toll ci jamono joo xam ne loolu dafa yomb lool sànq waxtu dafa yomb lool moo tax ñuy fàttalente rek ni ñu war a bàyyee xel waxtu niñ ko war a bàyyee xel niñ ko war a dundale niñ ko war a fonke solo solos waxtu daanaka euh, li ko ni ko alxuraan fësale ak ni ko sëriñ tubaa bàyyiloo xel dafa am solo ba tax nu war ko di fàttali waxtu wu nekk ndax lislaam dafa jox lool valeur lii di waxtu nit ki waxtu yi muy dund ndax bu buñ gisee suñu borom subhanahu wa taala di waat ci baat yoo xam ne day tegtale ay waxtu loolu day junju di màndargaal màgg goo xam ne waxtu yooyu màgg nañ ko ndax suñu boroom bu dee waat ci wal asri di waat ci wal layli di waat ci wal duxaa waa waat ci wal fajri yooyu yëpp ay junju la yoo xam ne day tegtale ne ay waxtukat lu mat bàyyi xel la nit ki war na koy teewlu saa bu nekk di xool nam koy dundale ak nam koy sàmme Sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu ku ne xamoon na ko ci fonk waxtu ndax bu ñu seetloo ñu bare bari waxtu gisi bët biñ koy xool mooy lu ñuy natt ci ay saa ci ay saa ak ci ay montar mu mel ne loo xam ne dafa sori nit ki am ñoo xam ne dañuy xool waxtu rek lañ ca mana def lu leen di indil alal loola mooy jox valeur waxtu nga gis ñu naan waxtu mooy alal am na ñuy wax loolu ak ñoo xam ne waxtu nañ koy gisee rek mooy bu ñu amee luñ cay def ak buñ ko amut nga dégg ñu naan am naa jot wala awma jot waaye bu ñu seetloo sëriñ bi moom waxtu daf ko tënkale ak nokkik nit ki nit ki no noyyi yi muy noyyi moom lay jëmmal ci waxtu moom nga xam ne kon waxtu nekkatul lu sori nit ki waaye dafa war a yëg ne mooy ak dundam waaw noyyi goo noyyi seconde bu la romb nga xam ne as lëf dem na ci sa dund loole nag ku ko jàppee noona danga xam ne waxtu lu mat a fonk la sëriñ Tuubaa mi ngi ñuy wax ci masaalikul jinaan waxul ay waxtu wu romb nit ki de waaye dafa wax ne eh, noy yi gu nit ki noy yi na xam ne wurus la wu gànjaru woo xam ne mënoon na caa am jënd lu baree bari loo xam ne du jeex lu muy denc ngir ëllëg loo xam ne aw yoom du jeex kon say waxtu ndekete valeur la cher woo xam ne la nga ca mën a am ci lu baax kenn xamul lu mu moo tax mu waxoon ne li anna kulla nafasin min rajuli jawharatun nafisatun lam tanjali yumkinu an yashtariya al kanza biha laa yatanaha xayruhu fantabiha kon mu ne noyyi gu tukkee ci nit ki na xam ne wurus la wu gànjaru woo xam ne mën na ca jënd loo xam ne lu muy denc la ngir ëllëg loo xam ne aw yoom du jeex mukk kon gisin woowu nga xam ne sëriñ bi mu ngi ñu koy junj ci waxtu nga xam ne nit ki dafa war a bàyyi xel noyyi yi muy noyyi xam ne kat noyyi gum noyyi rek la cay lam ca war a bàyyi xel ndax noyyi na ko ci lu baax wala ci ab safaan ndax noyyi na ko ci ak jaamu yàlla wala noyyi na ko ci lu amul njariñ loolu nit ki bu ko dee teewlu saa sum nekk dina bàyyi xel la ko cay jariñ ak la ca amul njariñ mu ban caa sànq ay ay noyyeem waaye sëñ bi mi ñuy junjaat geneen gisin ci waxtu mooy waxtu nit ki xaal bi mu nekk melokaan wa mu nekk war na koo bàyyi ak la mu laaj ci ay àq moo xam ne nit ki ñeenti waxtoo ngi nii yoo xam ne dana ca nekk waxtu wu nekk am na àq joo xam ne moom la moom la ca moo ca moo ca moom la ca war a bàyyi xel moom la ca war a jooxe mu waxoon ne faraiyan arbaata al awqaati is lasta taqdiha la dal yi am na ñeenti waxtoo ngi ni yoo xam ne bu la faatee dootoo ko mën a euh, dabuwaat dootoo ko mën a fay mukk mooy ñeent yi muy wax mooy nit ki dana nekk ci ak topp yàlla bu dee topp yàlla waxtu wooyu muy topp yàlla am na ca àq joo xam ne war na ko caa joxe bàyyi ko xel nit ki danay nekk ci xéewal waaye nit ki danay nekk ci safaanub ñaar yooyu mooy danay nekk ci ak mooy yàlla wala mu nekk ci nattu mbugal moo xam ne suñu borom mi ngi ko koy teg ñeent yooyu bu ci nekk war naa bàyyi xel la cay àq ja mu bàyyi mu joxe ko mu waxoon ne topp moom boo ca nekkee la cay mooy nga gis ne suñu borom subhanahu wa taala moo la moo ko moo la ko xéewale moo la defal tawfiq ba ba nga mën koo topp mën koo jaamu nga di ko ca sant waaye di ko sellal def ko ngir yàlla kon loolu saa bu nit ki nekkee ci ak jaamu yàlla nay bàyyi xel boroomam bu mu ca gis boppam bu mu gis jaamu yàlla ka bu mu ko jàppee ne gëne na ko keneen waaye da caa war a sant suñu borom subhanahu wa taala ba noppi sellal ko def ko ngir yàlla rek waaye nit ki dana nekk ci xéewalit bu nekkee ci xéewalit mu mu gis ne suñ boroom moo ko ko xéewale mu sant ko ca bu fekkee ne am na xeewal googe ku ko suñu boroom jaarale mu sant kooka waaye ginnaaw bu santee suñu boroom subhaana wa ndax sant suñu boroom ci xéewal gum jaarale ci keneen loolu mooy xaqiqa waaye ka ngay sant mu jaare ci moom loolu mooy sharia ci nit ki dafa war a boole ñaar yépp waaye ñetteelu xaal bi nga xam ne walla waxtu wi nga xam nit ki dana ci nekk mooy mooy yàlla bu ko yàlla nattoo mu nekk ci ak mooy lay àqi waxtu woowa mooy mu tiit ragal jàq dellu ci suñu boroom tuubal ko ca bañ koo yeexe bu fekkee ni dafa nekk ci nattu lay àqi waxtu woowee mooy muñ ak gërëm nattu suñu boroom rafet njort suñu boroom subhanahu wa taala waaye nag di ñaan suñu boroom woyafal ko ko wala mu teggil ko ko kon waxtu yooyu yu mat a bàyyi xel la mooy boo nekkee ci topp yàlla wala nga nekk ci xéewal wala nga nekk ci ay mooy yàlla wala nga nekk ci nattub suñu borom lu ci nekk rek am na noo ca war a taxawee àq joo ca war a jooxe

أكبر الله أكبر ginnaaw noonu la waxtu amee solo sëriñ bi ci dundal waxtu ak fonk ko bokk na ci lim ñuy jàngal mooy nit ki ak dundam ak ab dox la bu jëm ci suñu borom subhanahu wa ab tukki bu jëm ci suñu borom subhanahu wa jéego yu muy séqi nag di gën a jege boroomam mooy waxtu ay waxtoom na mu koy dundale loole moo koy jegeel boroomam nga xam ne kon wërta sànq wenn waxtu moo tax sax dem na ba ci ki nga xam ne dafa am jublu suñ borom soo taala nga xam ne moom la wax ki am iraada mooy ki namm ki wut ngërëmul yàlla ci mooy ab murit nee na bokk na ci màndargay dëggug murit bi mooy bàyyi xel waxtoom waxtu wu nekk la mu laaj mu joxe ko bañ a sànq waxtoom wa saadiqul muridi may man yanqalibu bi xukmi waqtihi wala bu amaamahu waqta kon jullit jullit bi rawatina ki nga xam ne dafa jublu suñ boroom war naa fonk bu baax a baax waxtu yi nga xam ne ca la nekk moo tax euh, dañuy wax ci nit yàlla yi dañ naan ab suuf yu dëgg ibnu waqtihi doomi waxtoom la mooy waxtu wam nekk rek la mu laaj loola la cay def te sëriñ bi mu ngi ñuy fàttali xadis yonent bi sallallahu alayhi sallam bi mu doon wax waxtani moo xamsan xubay la xam si mu ne waxtani moo xamsan xubay la xam si kama bihi amara xayrul insi kon am na juróom yoo xam ne nit ki war na koo bàyyi xel mooy ak dundam ak jotam ak man-manam ak wéram loolu lépp lu ci nekk war na koo bàyyi xel ba lum ca nekk la mu laaj mu def ko balaa safaan ba ñëw moo tax sëriñ bi di wax ne neenal ak dund ak sànq ak dund dafay lor nit ki lor ko lor joo xam ne du neex a saafara amal bitaalatu wa tadyiul umur bi xayri ma yaani fadaauhu yadur nit ki di nekk ci loo xam ne amalu ko njariñ di ca sànq waxtoom loolu lor jëm koy jural jàngoro jëm koy jural ju koy lor la joo xam ne neexuta saafara moo tax Cheikh Mouhamed Bachir mi ngi ñuy wax ci minanul baaxil xadim sëriñ bi ni mu fonke woon waxtu daan wax ne ka anna lay laylahu nahaaruhu wa nahaaruhu nuurun maa lil axyaari min zamanihi nasibun wa innama lillahi taala nee na gudd guddeem dafa mel ne bëccëg waaye nam koy dundale nam koy nam koy nam nam cay jaamoo yàlla mu ne bëccëg mi leer la mu ne lenn lu dul suñu boroom amutub cër ci ak dundam kon nag waris naa bàyyi xel nu ñuy dundale waxtu te mu leeral nañu ko ne ñu waxtu lu seer la lu tedd la kon nang ko dundale ci la gën a baax la gën a tedd te mooy jaamu yàlla mu wax ñu ci na nga koy dumbale ci naafi la ci woor ci tudd yàlla di werdu di xalaat di saraxe di dumbale ñi nga xam ne dañoo dañ ko aajowoo ah, ak di jokku mbokk ak di liggéey liggéey boo xam ne danga nga cay fàggu lu lew ak bégal jullit yi lépp lu am njariñ rek loo xam ne day suñ borom dala ci bindal tuyaaba nanga fexe ba say waxtu nga di ko ca def kon loolu lu mat a bàyyi xel la dundal waxtu te bu nu xoolee loolu nag ci la xutba bi nga xam ne moom la imaam war a xutba ci kanam ci loolu la la jëm kon muy wax ci xutba bi ginnaaw mu sante yàlla subhanahu mi nga xam ne lépp ci lépp ci loxoom la nekk moom mi nga xam ne mooy borom asamaan ak suuf ak li nekk ci seen diggante ginnaaw mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne yàlla du ko yónni muy bégle ak di xuppe di ñaanal ay ñoñam ak i saxaabaam ak ñi topp ci ñoom day wax ne yéen jaamu yàlla yi nangeen fàttaliku waxi yonent bi sallallahu alayhi sallam jim wax ne kun fi dunya ka annaka garibun aw aabiru sabil nekkal ci àdduna mel ne ku tumuranke walla ku nekk ci tukki ku nekk ci tukki du sànk dara ci waxtoom ndax barab boo xam ne danga faa nekk di fa wut loo xam ne boo delloo lool ngay jariñoo kon doo fa sànk sa dund looy def lu am njariñ lay doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxaat ni yit ne na ngeen màng juróom njëkk juróom na ngeen bàyyi xel màng seenu dund njëkk faatu di ñëw seenug wérit na ngeen ci profito njëkk ak wéradi di ñëw bu ngeen amee am koom na ngeen ci góorgóoru def ci lu baax balaa ak ñàkk ñëw bu ngeen nekkee ci ak ndaw muy kàttan bu ngeen ko amee na ngeen góor góorlu balaa ak a ñëw bu ngeen amee jot nangeen ca góor góorlu balaa soxla yee dikk di leen jët kon nag na nattu seen bopp bala ñu leen a nattu ku nekk nay réglé di peese ay boppam bala ñu koo peese na ngeen di màndaxe seeni jëf ci peesewukaayu sharia lu ngeen gis ne dëppoo na ak sharia na ngeen ca sax dàkk lu ngeen gis ne dafa juyoog sharia na ngeen ca tuub te moytu ko te bàyyi ko na ngeen xam ne la ci la cu la ca këru mujj ga muy àllaaxira moo gën fuuf te moo gën a des na ngeen moytoo bokk ci ñi yàlla di waxanteeg ñoom naan leen azhabtum tayibaatikum fi xayaatikum dunya wastamtaatum biha fal yowma tujzawna azabal huuni bi ma kuntum tastakbiruuna fi l ard bi gayri l xaqi wa bi ma kuntum tafsuquun ñi nga xam ne ëllëg yowmal xiyaam suñu boroom day waxanteek ñoom ne leen yéen day ci àdduna ngeen jeexaloon seenu seen seeni la ngeen waroon a xéewloo seen yu teey topp ngeen ci seen bakkan jëfandikoo ko ci àdduna fàtte àllaaxira bànneex topp seen bànneex yéen tey liñ leen di faye mooy rekk mbugalum doyadal ak toroxtaane ndax dangeen a nekkoon ci àdduna di rëy rëylu ci lu dul dëgg ak di def ay yëfi kàccoor kon loolu yàlla buñ bokk ci ñi ñi yàllay wax waxanteel wax jooju mu ne na ngeen màng li des ci seen dund dund goo xam ne la ci ëpp defu leen ca dara nekku leen woon ci dara na ngeen dabaatal la nga xam ne faat na leen rëcc na leen ci seen faratay jëmm ak àqi jaam yàlla yi nga xam ne da leen a war loolu bu ngeen ko defee ëllëg dangeen seen xol dana mucc ci gaafug bàkkaar dana mucc ci tërtëri bàkkaar na ngeen di bàyyi xel waxtu ngeen toll na ngeen di jàq ci seen ak mucc ndax kenn xamul ak mu jëm kon nag nit ki war nay tiit ci ak mujjëm tey nit ki fii mu ngi dund rek tàqalikoogut ak danger yi nga xam ne mën na ko caa mën na ko mën na koo dab kon nit ki waxtu wu nekk nay bàyyi xel ak mu jëm mu soxlaal ko mu yittewoo leneen lu dul moom ndax kat nit ki ak mu jëm day dellu rek la mu jiital bu nekkee ci lu baax suñ borom mën na ko defal mu rafet waaye bu nekkee ci safaan bu suñ borom dimbaliwut ak mu jëm mën naa ñaaw yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne seeni ku mujj day rafet eh, suñu boroom ñu ngi koy ñaan mu yàggal fi Cheikh Mahmoud Muntaka sàmm ko wéral ko ba li mu yéene mu yeggale ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 الحمد لله الجليل القهار مدبر الأمور ومقدر الأقدار سبحانه هو الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار ثم السلامان على سيدنا محمد المختار المبعوث للخلق بالتبشير والإنذار وعلى آله وأصحابه أولي الأيدي والأبصار أما بعد فيا عباد الله تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل وقال أيضا اغتنموا خمسا قبل خمس خذوا من حياتكم لموتكم ومن صحتكم لسقمكم ومن غناكم لفقركم ومن شبابكم لهرمكم ومن فراغكم لشغلكم وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا بميزان الشريعة جميع أعمالكم وما وافق منها قسطاس السريعة فدوموا عليه وما خالفه فتوبوا منه واجتنبوه واعلموا أن ما في الآخرة خير وأبقى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 واغتنموا بقية عمر قد مضى أكثره في لا شيء وتداركوا ما فرطتم فيه من فروض عينكم وحقوق العباد كي تسلم لكم القلوب من ذؤم الذنوب من شؤم الذنوب ورين التبعات وعليكم ألا تزالوا خائفين وجلين مشفقين من خاتمتكم لأنها غير معلومة لكم وخطرها باق مع الحياة وفي الخوف منها شغل شاغل عن الاهتمام بها بغيرها li ann alxaatimata tatbaxu saabiqata fa man xasunat saabiqatuhu salimat xaatimatu jacalana allahu wa iyaakum mimman sabaqat lahum min allahi alxusna amin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 فصاحبوا وربحوا وأصحابه الذين أعلنوا بسنته ومدحه فمدحوا وميزه بخصال الكمال فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال أيضا قل إنما أنا بشر مثلكم وناهيك بهذه بهذا الجلال بقوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وما أهوم هذه الخلال وصلى عليه هو بنفسه كما صلت ملائكة قدسه وأمر بالصلاة عليه عباده الموصوفين بالإيمان wa dalika gaayatul kamaal wa qaala tasrifan lahu yaa ayyuha alladina aamanu sallu alayhi wa sallimu taslima fa salli llahumma alayhi wa ala jamii ma lahu min al ashaabi wal aal ومن تبعهم بإحسان في الحال والمال اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا في زمرتهم وارزقنا القيام بما يجب لهم من التعظيم والاحترام مع أن محبتهم فرض أكيد على الأحيان وشرط في صحة الإيمان واسمه قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى يغفر الله لنا ولكم آمين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 akbar allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim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 allahu akbar allahu akbar allah assalaamu aleykum assalaamu